Elhadji Ousseynou Ndiaye dal a jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo ñu daal koy door grand place yéenekaay di ñu xamal ne jamono ji kàddu yi nga xam ne xalif général des Tidianes yëkkati na ko di Serigne Mbaye Sy Mansour nga ñu koy wax corona jamono ji loolee mënees na koo bañ a tuddee corona nattub yàlla la tey nag mbugal la moo xam ne yàlla da koy won Sénégalais yi nañu sàkki sarax loolee kay la yéenekaay bi fësal vox populi daal di koy feelu ne ñaax nguurug Sénégal ñu daal di wax dëgg ñi nga xam ne rek ñoo di askan wi laati biñu yéene kaay di ko feelu di ko xamal ne koy xalif général des ci ñoo xam ne ak nga xam ne rek moo di 24 heures ne def jëf ji ñaaw na lool gannaaw nag ba ñu teree dajaloo bi nga xam ne dañu koy dajaloo di football ñoom kay jamono ji dañoo song takk der yi nga xam ne rek ñoo nekkee foofee am ñaari gendarme yoo xam ne jot nañ leen a waaye makkaan bi nga xam nekkee foofee ñu daal di na jëfi yuqu nduur gi jëf la ju ñaaw na noo war a wax nag gën a wax dëgg waaye nag gën la ñuy doxale nag masque yi nga xam ne rek dañuy wax ne mën nañu koo takk ci mbedd mi fu ñu leen am na ak arrêté gu koy fësal xam ne maanaam daal ñàkk takk masque bii daal li nga xam ne moom la état bu Sénégal waroon a def fexe ba ñaax doomu réew mi gën a mën a xam jàngoro ji moytul ko seen bopp siklisif yéen kaay du xam ne ak lu mel ni xew daal jàngoro ji tabaski gi bu tasaaroo na lool ci réewum Sénégal Le Quotidien yéen kaay mel ni koy alerté du ñu xamal ne kay jamono ji ñetti événement yi nga xam ne moo ngi ñëw yu mat a bàyyi xel muy màggal gi ak gàmmu gi waaye tamit ubbiteeg université yi sursoit yéen kaay du xam ne ak lu mel ni xew daal na muy bari na lool réew mi yéen kaay du ñu xam ne gannaaw coronavirus ja am na ñetti président yoo xam ne yi bëgg nguur mooy seeni jafe-jafe président bu Guinée ak bu Côte d'Ivoire ak bu Sénégal boo moytu nag fañ neex Boko Haram dañ lay jeex réew mi yéen kaay di ñu xam ne Boko Haram kay ak jàngat goo xam ne jot nañu ko def Dakar Times di ñu xamal ne maanaam daal 2022 ca lay jeex tàkk ñoom waa Boko Haram waaye nag yéenekaay gi di l'info di ñu xamal ne réewum Sénégal war naa gën a bàyyi xel Boko Haram ndaxte am na ay doomam yoo xam ne ña nga ca googale kuréel France Afrique gi nga xam ne moom la ñuy jàbbaa jonga l'info yéenekaay di ñu xamal ne bëri na ay entreprise yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réewum Sénégal tey nag am doole lool l'observateur yéenekaay di ñu xamal ne fi nga xam ne rek moo di Casamance ay rebelle ñoo fa jàpp ñaar fukki leen ba ñu nooy bàyyi leen ñi ñi les échos jamono ji kay Wally Seck coow topp na ko moom doomi coon balago Seck yi moom kay gannaaw ab oto bu rafet goo xam ne dañu koo jaay ndekete yoo oto ba dañu koo sàcc ñu topp ko ba mu teere ji ca loxoy waa lii yéen kaay dañu bu doy waar benn waay bu ñuy wax Abdou Sow moo jàppoon nag jabaram dafa am far ca la ko jàpp wulli ko ba damm ñaari loxoy libération yéen kaay di ñu xamale loole kay donte doy na waar am na ñaari boucher yoo xam ne jàpp nañ leen ñoom kay yàpp fas lañ leen jàpp ñu ko doon jaay ne nag yàpp nag la Elhadji Ousseynou Ndiaye